waa ci loolu nii ci xew ni yëpp tey jii. Mhm. ban responsabilité aussi euh, moo ci moo moo moo war a topp ki nga xamante ni moom moo di Aïssata Tall Sall di jëm bi nekk wàllu wàllu affaire étrangère. Aïssata Tall Sall moom démb na ne la a échoué. bu fekkee ni yow yaa yore sénégalais de sénégalais yi nekk ci diaspora bi sénégalais yi nekk ci diaspora bi am taxawaay bi mooy yow échec nga Aïssata Tall Sall bi may wax ne elle devait être démise de ses fonction du tey yàgg na. li muy def du mannequinat lay def en fait géré wul ministère bi normal il devait démis de ses fonctions yàgg na parce que sénégalais yooyu noonu demeure moom moo war a nekk trait d'union entre ñooñu ak le président de la république du président moo mun di xam waxtu bu nekk ku nekk li la naqari mais teg na ay jëwriñ yoo xam ne ñooñu moom loolu mooy seen rôle Aïssata Tall Sall non seulement waroon na dem avant New York préparer terrain président Macky Sall euh, dem si yàlla ji fa Ousmane Tanor Dieng daan na am taxawaay bu mel noonu ci moom ñu bëri sax dañ daan wax ne Tanor était en réalité le vrai ministre des affaires étrangères bëri na fu président daal dem moo daan jiitu tâter le terrain préparé ñëw président mais Aïssata jàppoon naa ne jour boobu noonu noonu noonu bu doon beneen réew la jour boobu lañ koy démis de ses fonctions maam président ñu ko war dimbaliwuñ ko en fait sincèrement dimbaliwuñ loolu moom am na ay observateur yu ko yàgg yu ko. yu ko ko quoi dimbaliwuñ. alors cheikh bi. image am intéressé wu leen. way bi mu fi bàyyi intéressé wu ñoom xam nga leen intéressé mu maintenir au pouvoir. Mm-hmm. ñoom ñu continuer di jouir des des largesses ainsi de suite. Mm-hmm. parce que ñii ñëpp ñoo doon jël président naan ko kaay dem uti troisième mandat. Mm-hmm. dara du xew. te bi président ne du ma def troisième mandat Sénégal ñëpp kontaan. mooy kon bu président ne woon damay def troisième mandat ñi kontaanul ñëpp dañuy mer. kon ñooñu bi keex na ko demal wuti troisième mandat sóoruñu woon lu li nga xam ne moo baax ci image yu président ou pas. Mhm. mais ñoom seeni seeni bëgg-bëgg lañ doon xool. Mhm. Mhm. alors euh, cher bi. Euh, suivre nga démb euh, li c'est-à-dire avant même ñuy quitter point ak bi ñu taxaw nii ak le président. lu ni mel aussi bu ñu fàttali bennoo ci fan yi ci lañu désigné li nga xamante ni moom moo di seen candidat. est-ce que li xew foofu foofee ca New York aussi ak sénégalais ya fa nekk. ci wàllu diaspora bi aussi est-ce que lu ni mel tamit warul alerter. ki nga xamante ni moom mooy moom mooy. l'actuel candidat de Benno kenn war naa alerter le candidat de Benno ak ñenn ci opposition bi parce que wane na ne diaspora bi c'est déjà réglé Benno du ko gagné élection yi ñu jëm xam nga loolu leer na te diaspora moo tax malheureusement bi baat li mu jaaz naan diaspora vous représentez que pour cent ma ne ah kii bu ne école du parti la génnee. ñi ko créé mooy ñoom fa jiboka war na am lu leen. waaye bu ñu fàtte ni tamit Cheikh bi keroog lañ gis ci image yi bëri na tamit mbooloo bu takk bu génn accueillir le président. nangu na est-ce que oui est-ce que. xam nga boo nee diaspora xam nga boo jëlee diaspora xayma leen ci 4 pour cent xamoo Sénégal koo ci jël ci ñoom yor na fii jabar yaay wala famille bu muy dundal ñoo xam ne sa waaw la ñuy wuyu. soo leen nee voté leen diw ñu voté diw voté leen x ñu voté x euh, diaspora sénégalaise dafa influent ci réew mi donc leer na ni ñii ñoom duñ ci jot beneen bi mooy est-ce que élection loolay véritable question bi dana am ci diaspora sénégalaise attention te élection yaakaar naa bu benn bureau de vote wala benn zone bu fa élection jàllu élection yooyu day nul moo tax day duggaat ba tey ci rapportu élection yi ci date bi nga xam ne moom la ko calendrier bi jàpp benn entrave yi mën a aaye élection déroulé wu normalement moo bëri Sénégal nag dafa bëgg di nax boppam ba àgg ci miir bi na ah lii miir la ñaareel day gis miir naan non yoon la ba ne teel ci miir ba door a nangu ne lii miir la ñii am taxawaay bii ci ñëw président Macky Sall ce que danañ nangu élection déroulé fa normalement ci bureau de vote yi te ay incident gis nga ko itali gis nga ko France gis nga ko Angleterre donc kan moo ñu mën a garantir ne bu ñu accès ci datu élection yi diaspora dans différents pays élection yi dina fa dérouler normalement. mais comment dans ce cas-là Amadou Ba aussi peut faire pour convaincre les Sénégalais de l'extérieur bu ñu gisee ni ñenn ki ñoom. mer hmm. lañu fa rien du tout Amadou Ba rien du tout. rien rien ndax jéem xam Amadou Ba lu mu mënoon convaincre. parce que s'il veut se pouvoir. bi ñu ko falee xam Amadou Ba dafa am lu mu raté perte ñu bëri dañ ne bu dee dañ ko fal ngir mu décrisper tension bi fi nekk. fexe ba dox trait d'union diggante Macky ak Sonko ci moom relation yi mu am ku ci nekk Sénégalais yi foofu lañ ko doon xaar mais malheureusement bi Amadou Ba nekkee premier ministre ci la Sonko gën a sonn ci dëkk bi te ñu bari dañ doon xaar ni moom mooy régler yi fii loolu la rate mais ah, mun na am xaaruñ ko woon ci biir am mun na am ci ñoom ñi nga mhm. kenn si ñoom ku nga xamante ni mhm. mun na régler mbir yi démb fi nga toog sama grand Abdoulaye Fofana Seck ba tey mhm. ma ñëwaat ci moom waaw euh, nee na ku mel ni Mamboy Diawo Mhm. waaw Mame Boye Diao waaw pour servir de pont mais est-ce qu'il n'est pas trop tard Penda yi est-ce que mënuñ ko woon def bi ñuy am doole cest à man ñu bëri moo tax ci gars yooyu bu ñuy jéem a affirmer seen lien ak mën man gëwuma ko Ousmane daf fiy dund safara ci kaw suuf attaqué fi moom it le président Macky ñoom ñuy des proches du président Macky Sall mu ñu dox diggante ñaar ñi. xëy na dox nañ ko ci suuf. je ne parce que des fois. Ousmane jege woon ak yi wala ñu trouvé woon terrain d'entente arrangé wul ñoom seen ñoom seen calcul politique yi parce que kaam wax la pend xoola quatre-vingt-dix pour cent la classe politique avait misé ci affrontement wu yi ak Sonko politiquement kenn éliminé moroomam ñoom ñu am champ libre dugg te ñu bëri dañ miser woon ci mag Macky éliminé Sonko ñoom ñu mën a dugg wala éliminer éliminé yi mais après image am dootul positif ci sénégalais yi sénégalais yi xaw ko ragal ñoom ñu daw dugg en scène looloo tax sax récemment ñu bëri bi loolu yéexee ñu déclaré seen candidature yi de gauche mais ñu bëri ci loolu lañ misé wul nan leen seetaan ñu raayante politiquement ñoom ñu am yoon bi libre ñu mën a dugg donc man gëm naa ñooñ doxuñ ci moo tax tey ñi leen di waxal pour séduire l'électorat de Pastef naan ñu Ousmane ni Mame Boye Diao mel ci moom ku dul ay soxna meloo ko ci moom <laughs> père Sénégal dafa def ñi naan la Amadou Ba ak Sonko bi ñuy jaar impôt domaine bi ñuy ànd takki sëy boobu xalaatuñu def politique waaye après. mais lu am la aussi. waaw bu amee tamit mais n'empêche li xew xew na kenn déggu leen ay temps sax boo leen. laajee mais politique lañ nekk de. waa politique lañ nekk gis nga pen na moom gis nañ fi ba sonn ay nit te réeroo rek te musta am seen diggante. gis nga Ousmane Sonko. bis bu xëyoon bis tànn Amadou Ba wala Mame Boye Diao ñi ànd ak moom bàkko ñi ànd ak moom moom la ñuy bam ñaar comme ci tànnoon ñi ànd ak moom bàkko parce que dafa am su boobaa day trahir lim leen jaayoon. kon daal gëmuloo ni malgré euh, relation yi nga xamante ne entretenir na ko soit ak Amadou Ba wala ak Mame Boye kenn si ñoom euh, dox diggante bi. c'est trop tard diggante ba bañ ko waree dox doxuñ ko ni. ba ñuy toj ba ñuy am na ñu jàpp ne ba tey c'est trop tard. lu ñu mën bi ñuy toj oto waa ji Sonko ñëw bokk ci li nga xamante ne moo di penn xoolal. oui bi ñuy toj oto waxuñ ci. biñ koy bi Euh, biñ koy dogaale ci yoonu Tivaouane la woon xaw ma waxuñ ci biñ koy ko ci caravane de la liberté waxuñ ci biñ koy barricade cinquante-cinq jours waxuñ ci bi muy grève de la faim bay waaj a àgg ci ligne rouge lii doomi aadama mën a supporter nga xam ne Sonko dee la gënoon jege ko dund waxuñ ci ñooñu kenn la ñuy wax. ay avocat am euh, kalaame nañ lu ñu mel euh, ci waa CEDEAO. Mhm. sa gis-gis ci acte beneen acte bi nga xamante ni posé nañ ko laataa ñu ñëw dugg ci sortie bi accordé na ko waa TDC. bon juste procédure la rek mais doo am effet nag sincèrement CEDEAO moom moo tax foofu Pastef bu ma sañoon duñ fa attardé wu. amul décision wala fekk euh, nu mu tudd maanaam ñaata décision la CEDEAO jël en faveur de Karim Wade wala Khalifa Sall dafa am impact ci seen. Euh, nu mu tudd ci seen dossier déggoon nañ fi sax Ousmane Sonko ci ab conférence de presse bu waxoon ne àndul ci doxalinu waa CEDEAO. amul benn njëriñ sincèrement. CEDEAO kon pourquoi dans ce cas là sax ñu dem di kalaat. je sais pas man kenn loolu jaaxal na ma man sincèrement man ah, la bu doon man la du ma ko waa Pastef xaw nag ses avocats xam nga li ñuy wax rek mooy li la fi doon wax benn jour. say avocat moom des du xool sax yow say position wala li nga bëgg ak li nga bañ ñoom dañuy jàpp ni lii mooy yoon ñu def mais du am benn impact. amul impact ci Karim amul impact ci Khalifa gis nga Ousmane Sonko li koy génne du jóge ci CEDEAO du jóge ci benn organisation internationale. ci kan lay ci askanu Sénégal gii. ak le président de la république point keneen ku dul nii mënut a génne Sonko ci lim na. askan bi est léegi mën li ma la wax taxaw ci sa temps nañ ci bëgg dara ça dépend rek. ça dépend rek maanaam pas forcément maanaam avec la violence non non bëri na loo xam ne askan bi mun na ko taxawee noo xam ne ñoom ñii danañ xam ne askan bi day exiger ñu génne ko. wala le président de la république décide par exemple askan bi décide na ñoom élection yi ñu jëm ñoom ça les intéresse pas ça les engage pas sans Sonko. loolu mën na ne. non mais bu ñu ko defee maanaam du may. maanaam tey ça profitera à qui. ça profitera à l'État. ah mu ngi noonu. waaw ah, donc li ma gëm daal mooy mbirum CEDEAO yi daal. génnewul Sonko fi mu askan bi wala président Macky Sall point. nañ a kon daal lu ñu mel peine perdue la woon. amul njëriñ de man de bu doon man la du ma dagg billet di fa yóbbu du ma jël sax temps yónnee fa cour woon nañu aussi cour suprême pour annulation li nga xamante ni euh, moo di seen parti bi ñu dissoudre waaw hmm. ah, loolu moom c'est ah, tout à fait bëgg nit ñi moom yoon moo leen ko may ay juridiction réew mi heure bu ñu la tegee daan boo xam ne d'accord ci nga def appel d'accord yaakaar naa ñi ngi ci euh, délai légal yi pour hmm. def